grand fama kon mbokk yi bisimilah Ndiaye nak suñu invité ñu recevoir rek ministre de l'élevage Samba Ndiobène ak mom koñ fas yéene waxtaanee tàllu tolluwaayu élevage fi ci réewum Sénégal waye tamit apportu état bi waye tamit ci jamonoy contexte bi nga xamanté mom rek maladie à coronavirus nan la tamit impacté ci bile euh, kon bankas ak di bankasu càmb gi Samba Ndiobène ñu ngi lay nuyu. ma ngi lay fay Samba. en plus kon ñu respecté rek li ñu wax mesure de distanciation sociale bi jël euh, baa ngi nii. Euh, Merci. Je euh, coronavirus alors monsieur le ministre le contexte euh, pandémie Covid 19 nan la département tout d'abord je bëgg permettre comme que ci korité en profiter pour baalu ak sénégalais mais aussi bal par rapport la euh, question concernant effet immédiat la Covid 19 le secteur élevage je naa ni effet yi mënoon parce que le euh, Covid 19 na ci li nga occasionné secteur élevage de réduire les déplacements wàññi euh, déplacement éleveur éleveurs, ak gox te kenn ku ne éleveur déplacement ci longue distance lañ ko gëna xamé mais Covid bi mu ñëwé avec les restrictions xawon na metti ci ñom au-delà de ça aussi amna li ñu nane interdiction des des rassemblements moy nit ñi dajaloo lolu aussi euh, suñ ko waxé c'est tout à fait évident que marché hebdomadaire yi ñu am ci ay jafé jafé té kenn ku né xamna euh, éleveur bi. Euh, du ko xamné de dafa liquidité ci kërëm wala banque mais nit lañ ñoo xamné un fonctionnement c'est un fonctionnement si je peux m'exprimer ainsi quotidien et c'est à travers les marchés hebdomadaires que dem yóbbu sen jour denrée alimentaire pour consommation personnelle mais aussi pour aliment aliment bétail mais avec ces restrictions là xawon na metti lool ci mais heureusement par rapport à ça euh, président de la république son excellence monsieur Macky Sall mu jël ci ay matuwaay matuwaay yim ci jël mu nañu fexe ñu nekk ci Covid bi la situation du Covid mais tout en sachant que ne comme comme bi continuer devoir am parce que nag virus bi metti na waye nak suñu moytuul comme comme bi am fu muy tollu dina gëna metti ci population motax par rapport à ça vraiment mo am ay facilité yu bari ñu def ko yombal dem beeg dikk bi mais aussi ubi marché yi tey ci tay mën sur ce plan là dañ ci sant yàlla mais benen effet bi nga xamné aussi mën nañ ko noter surtout ci wàllu euh, secteur élevage dans dans le sens large du terme moi euh, volet avicole moy yarum genar bi parce que kenn ku ne xamna yarum genar euh fim am fo xamné euh jafé jafe-jafe la jafé jafe-jafe bi ci jiitu problème de ventes. Moi, lan mooy njaay mi parce que nag nit soo yaree say say ganaar ba mu toll maturité te munoo koo c'est tout à fait évident mu am ay répercussions ci say dépenses mais aussi euh, moi, am répercussions qui say charges réelles Faut noonu état gis ci baax nañu accompagner éleveurs surtout éleveurs yu Moi, tout à taxoon mu amoon ay concertation avec acteurs filières pour permettre les gens ñu avons a am de distribution déjà beaucoup de ci facilité yi moy surtout leen surtout promoteurs yu mag pour nous am des des structures de stockage qui euh, qui ay chambre froide j'appelle nañ ci len accompagner nañ pour nous, à leur tour nous man auprès des petits producteurs Nous sommes les poulets loolu noonu problème ventes là pour poulets de chair surtout et le euh, problème bi surtout euh, le surtout secteur laitier aussi secteur laitier amoon na jafé jafé. jafe-jafe bi mu amoon mon économie surtout sur je la zone des Niayes xam nga kenn y a un investissement important état de Codef accompagner des promoteurs privés pour que nous produisions assez de lait au Sénégal Nous avons également seen jafe-jafe mu ngi surtout problème de déplacement parce que si on wul déplace que koy produire avec usine que nous avons collectée. Nous avons des dañu am ay problème de main ventes foofu aussi ñu discuter ci vraiment ak suñu Tango ni yore intérieur nous faciliter vraiment ce déplacement vraiment en un mot li gëna a fait am jafé jafé ci secteur élevage té mu concerné té Covid bi impacté c'est surtout un problème de déplacement et par rapport à ça euh, actuellement à mon la situation quand même est plus ou moins atténuée donc lool non mënuñ lu dul euh, rafetlu ci ci mais aussi sant ci euh, son excellence monsieur le président de la république monsieur le ministre wax nga ko état bi am na ci ab taxawaay na enveloppe sax a di koy euh, taxawoo euh, jàppale ci ñii di éleveurs yi yow sax nga amal ci ab tournée ci région yi ban bilan ngay mën a tiré ci euh, boobulee tourner ci gox goxaan à la rencontre des des éleveurs. comme ni ko président de la république defee rek ci jàppale askan wi ci a alimentaire luy tolloog 69 milliards jël luy tolloog 12 milliards 5 jàppale ko diaspora bi l'utologue 18 milliards jàppale encore askan à travers le paiement des factures d'électricité à ndox ak yu mel noonu dene baax accompagner euh, nit ñi euh, vie quotidienne pour soulager les gens. jur gi une enveloppe de 3 milliards pour nous permettre ñun nous mën ci jënd luy tonnes d'aliments bétail sant Euh, déjà ci wàllug euh, approche bi acteurs yëpp la ñu regroupé filière yëpp la ñu regroupé filière bu ne am nga ci li nga xam ne moom mooy li nga yelloo bés boobu tout en sachant que nag euh, du doy parce que nag lu doy yàlla kese ko yore te defalu ko ñëpp kon bu ñu séentu ci lu doy ci doomu aadama par rapport à sa 3 milliards yooyu mën naa ne tey ci tey

borom réew euh, président de la république euh, dafa bàyyi xel secteur économique yépp comme nous l'avons fait au niveau du ministère de l'Agriculture, 60 milliards def ko pour accompagner euh, béykat yi noonu la également pour accompagner sàmmkat yi noonu la aussi pour accompagner yeneen secteur d'activité activité yëpp kon foofu mënuñu lu dut rafetlu ko par rapport à la mise en place euh, sur le terrain lolu aussi dañ ci euh, les autorités administratives ñi nga représenté le président au niveau région mais au niveau département parce que nous suñu fait li ñu def au niveau central ba paré fait waccé lepp au niveau national et là wax fi jusqu'au moment où je vous parle jotuñu ay retour yo xamné retour négatif par rapport ak déroulement bi sur le terrain donc mën na euh li nga xamné prévoir on nañ ko lépp mettre nañ ko à place en place et dans de bonnes conditions. wàllu matuwaay yi état bi daal dinay euh, assouplir comme ni ñu ko waxee mesures yi bokk na ci tamit ñu ubbiwaat yenn yenn bërëb bu jaay yi est-ce kon loolu mën na indi xel mu dal ci fetum tabaski bi ñuy waajal euh, ci ay weeru néew rek est-ce que xel dina dal kon ci disponibilité maanaam mouton yi ci ci askan wi. effectivement ubbi ubbi tey marché hebdomadaire yi tey ci tey damay ne euh, c'est un facteur important par rapport à l'opération tabaski bi nga xamni ñong ci parce que kenn ku ne xamna waxna euh, éleveurs la plupart du temps euh, fi ñuy écouler pour produit mom moy marché hebdomadaire le fait que le président de la république ubbi ko tey encore une fois de plus la volonté de l'État d'accompagner les promoteurs d'accompagner aussi les opérateurs sénégalais fofu nous euh, damay ne c'est tout à fait évident par exemple suma ma l'exemple exemple marché d'Aratay, euh, euh, marché dimanche pour dara marché bu am solo la en mouton au Dakar wala euh, zone yu yu que entre autres le fait que ñu ubbi ko dimanche presque c'est la convergence de tous les acteurs moy jaykat yi ak jëndkat yi donc mun munuma lu dul euh, loolu noonu ne rafet dañ koy rafetlu parce que ça va nous permettre quand même euh, niñ ko def à Dara ak yenen marché hebdomadaire ça va permettre quand même un bon approvisionnement euh, un bon approvisionnement nak ne veut pas dire quand même li ñu soxla lépp dinañ ko mëna am au niveau national parce que kenn ku ne l'offre nationale bi nga xamné yoré nañ ko tay permettre cette satisfaire la demande nationale bien nga évaluée évalué à plus de 800 000 moutons en une journée donc c'est tout à fait évident que Dinan ubbi euh, frontières yi euh, échange avec natango d'ailleurs au moment où je vous parle maintenant, il y a de cela juste 30 minutes la apparaît une rencontre une réunion par visioconférence avec euh, sama nattaango bu Mauritanie avec opérateur mauritanien Yip et c'était une façon déjà de les rassurer des dispositions yi nga xamné ne réew état du Sénégal à travers le président Macky Sall mi nga xamné mo signé lettre circulaire bi mais aussi rassurer gens, surtout par rapport ak euh, transfert bi ñu def euh, de la Mauritanie jusqu'au niveau des sites euh, finaux de de vente des moutons Donc vraiment pour voir ne rek par rapport ak loolu ubbi marché hebdomadaire mënu avons ne lu am pour élever yëpp. te élevage qui Réum Sénégal. Maintenant, naa ne élevage au niveau du Sénégal l'élevage du Sénégal se porte très bien même nous Nango aussi il y a énormément de défis il y a aussi des perspectives qui am solo tolluwaay bi bokk na ci su je juste à titre euh, indicatif en 2011 le président de la république Macky Sall di je pense bien le budget du ministère de l'élevage à ngi 8 milliards 3. au moment où je vous parle budget élevage l'Élevage presque 25 milliards 8. donc l'eau de c'est un effort important et l'eau nous su ngeen euh, président de la république a def un constat constat bi mu def le secteur laitier la filière laitière chaque année luy tolloog 50 milliards mu ngi jóge ci réew mi dem ci yeneen pour indi meew ci suñu non seulement euh, alal bu bari lañuy lañuy les mu au profit d'autres éleveurs mu créer de l'emploi chez ces éleveurs là au même moment nous, ñun Sénégal ñu nekk dans dans cette dans cette situation de consommateur éternel président Moni, il est grand temps par rapport à l'or, nous trouver des solutions mais aussi nous trouver des stratégies pour que les nga qui ne koy utiliser suñu nous produire moo nous mettre en place un programme yu bari bokk pour renforcer un peu euh, production laitière ci biir réew mi moom Je la doon wax légui bokk na ci activités yi nga xamné dañ koy def ci euh, surtout accompagner promoteur privé pour ñu mën di am ay ay nagouras parce que nak ak luñ fi mën di def nañu nangu fi ñu ni euh suñu raas yi ñu yoré ni am nañu ay jafé euh, jafé mais am nañu aussi euh, problème de potentiel de de de de potentiel problème yoy nak pour vraiment remédier à ça euh, programme état bokku na ci importer ay nagouras mais parallèlement à l'importation Nagourassi aussi am euh, promotion de l'insémination artificielle euh, pompe Nagui. parce que si on avons une génétique normale, c'est tout à fait normal nga une stratégie pour renforcer le potentiel génétique pour l'insémination l'insémination. ñuy insémination croisement et santé au moment où je vous parle, je sais quand même que les résultats sont très très intéressants par rapport à 2011. Parce que si dit en termes de production laitière, déjà en 2011, on était aux alentours de 160 millions de litres. Euh, au niveau national, on est au plus de 200, millions de litres, autant pour moi. 164 millions de litres en 2011. Aujourd'hui, on est 250 millions de litres euh, ci la production laitière loolu damay né évolution bu am solo la et aussi euh, c'est des actions aussi à encourager mais au-delà de ça tout récemment rek euh, comme ni makoy le président de la a insisté qui conseil des ministres à ce que nous trouvions une solution définitive par rapport à la production laitière parce que ce que ku ne c'est vraiment aberrant au moment où nous, au Sénégal nous avons suuf nous ñu ndox mi expertise bi ñuy continuer quand même di importer du lait mais par rapport à la qualité xawma sax nu qualité donc par rapport à tout ça nous avons un programme important bu ñu formuler en relation avec nos différents partenaires. Hmm. est-ce que tax ñu euh, de valeur c'est tout à fait évident parce que si euh, damay ne suñu favoriser la production locale lolu déjà régler problème yu bari problème bi muy ñëk régler l'autonomie. na ci autonomie souveraineté mais nous benen aussi problème bu muy régler parce que suñu waxé promotion euh, du secteur laitier avec une production locale c'est sûr et certain que ça va créer des emplois supplémentaires et des emplois décents yo xamné emploi yu yu yu yu yu mën yag la waaye emploi yu mengok ñi nga parce que nak euh, li ñu wax marge de progression yi nga xamné dañ ko am ci secteur élevage amuñ ko ci benen secteur donc ne serait-ce que pour ça mon ci Bopam, gis na lolu instruire nous également pour que nous mettre en place des programmes allant dans ce sens mais couplé ko surtout ak les cultures fourragères parce que nous kenn ku ne euh, Sénégal réew mi mu ngi bokk ci Sahel te problème mu réew yi nekk ci Sahel li ci gën bari moom mooy problème ndox te ndox su amul assez c'est sûr et certain que nous avons am aussi un tapis herbacé bu conséquent bu la mën a permettre nga def yenn activités yi moo def culture fourragère occupé une place centrale dans sa politique Moi, j'ai joxe des instructions fermes euh, à l'endroit de mon collègue euh, ministre en charge des collectivités territoriales pour accompagner le ministère euh, de l'élevage en relation avec le ministère de l'agriculture bien sûr pour nous promouvoir les cultures fourragères donc une façon juste de vous dire il veut quand même qu'on mette en place la batterie une série de batteries franchement pour accompagner le secteur de l'élevage au sens large du terme élevage nekk na ponk bu am solo ci suñu wàllub euh, koom-koom tey nan lañu mëna mën a rassurer maanaam ki nek ci àll bi di amal euh, meew te après même problème pour euh, conserver ko tey ak jaay ko sax bu resee nga koy tuur tey man politique tey ngir taxaw yoy lé yoy lé jaay kat par rapport ak collecte ak transformation wu bi nga xamné ñong koy am tey ci tey lolu aussi nañu nañu ko wax euh ya kam une forte évolution parce que le président de la république en 2012 beaucoup na ci que les sénégalais euh, Dina 1000 euh, tracteurs équipés voyez aussi dina équipements de transformation et je parle en connaissance de cause parce que man la le docteur de l'équipement rural Je suis au niveau national de 2012 à nos jours il y a plus de 2000 tracteurs qui ont été réunis et Santéal également je na dugg pas mi mu accessible mais c'est des tracteurs équipés à presque 60 euh, subventionnés autant pour moi à presque 60 moy que ne yow ci tay euh, sëñ Samba soxla nga un tracteur tracteur buñu à 19 millions par exemple état subventionné le ko 70 a yow 7 millions ngay fay Non, mu ko ci tracteurs yi Non, la ko aussi ci secteur laitier bi au moment où je vous parle nous avons au stock 700 unités de de collecte de transformation euh, laitière par rapport à lolo, nous ngi koy euh, euh, ñu actuellement rencontre pour le dispersing au niveau national et l'OLU, c'est sûr et certain que nous contribuer à ñi nga xam produits produit ci ci nous ñu koy collecter mais aussi nous leen euh, nu koy transformer wala une partie nous transformer mais parallèlement à ça aussi on veut mettre en place nañu mettre en place de véritables entreprises laitières parce que nous avons euh, c'est l'exploitation familiale mais nous lo aussi c'est l'exploitation industrielle et par rapport à ça nous ngi nekk di un programme un programme national de développement intégré de l'élevage du Sénégal pour que nous regardions une meilleure stratégie, franchement, pour encourager le secteur privé et les éleveurs euh, habituels pour que nous puissions développer le secteur élevage. alors pour que nous mën a en compte les euh, problèmes problème élevage est-ce que tu voilà, wala euh, ci politiques ay politique les états généraux avec euh, acteurs yi éleveurs nous en considération les problèmes problème et élevage bi par rapport à secteur élevage comme nous le connais si je prends l'exemple déjà le programme bi actuellement programme national développement intégré de l'élevage au Sénégal beaucoup de ci li ñuy def wut li consensus ça veut dire que approche bi ñu euh, approche participative l'implication doon implication acteurs yëpp lay de bokk na moi d'abord éleveurs à travers cadre de concertation bi nga xamné mu ministère bi té mu am luy cinquante organisations euh, éleveurs mais aussi euh, les partenaires techniques et financiers et dans ce cadre aussi au passage je euh, voudrais remercier surtout la FAO pour son soutien de taille parce que nous wax deug fi yalla ñu ngi ci accompagner mais aussi yenen partenaires techniques organisation you tel que CNCR tel que vraiment nous impliquer organisation prévoir également vraiment des rencontres ne serait-ce que cinq jours de rencontres y échanger autour de toutes ces questions mais comme que euh, film mu toll avec aussi Covid il y a obstacle obstacles bari ci déroulement activité yi contrainte yu bari ci déroulement activité yi moo tax euh, ba génn ci lii pour mën a convoquer yenn rencontre mais fi mu toll nii tembe tembe li nga vraiment urgent et ñu ngi ci surtout la préparation de l'opération Tabaski li nga ça constitue quand même une activité importante sur le plan religieux sur le plan économique sur le plan social Le président de la République ci ay am solo et ni ma ko tout à l'heure euh, def ci lettre circulaire boo xam ne dafa dindi lépp loo xam ay taxes la ci walu xar yi dugg pour yombalal ko koy jënd mais aussi ni muy police muy gendarmerie muy douane ñi nga xam ne dañu ñëw pour opération tabaski yombalal leen dem bi ak dikk bi parallèlement à ça aussi mu instruire ñu pour que ñu defar fépp foo xam ne daluwaay la mooy les sites de vente mooy fi nga xam ne su opérateur bi ñëwee foofu lay nekk mu fekk fa ndox mu fekk fa courant mu fekk fa aliment bétail subventionné mu fekk fa sécurité bu doy loolu mooy li nga fan le président de la république jox nañu comme instruction et ñoo ngi ci def suñu la tout à l'heure la parek sama homologue euh, bu Mauritanie barki démb homologue bu Burkina et incha allahu taala prévoir nan aussi euh, discussion yu mel suñu homologue yu Mali offre bi nga euh, moy jogé ci réew yi ñu wër mais au niveau national aussi commencé nañu euh, activité de recensement des offres au niveau national parce que nak euh, jëli baax choses, mais li fi nek également baxna ñu xam ko pour ñu mën franchement satisfaire la demande nationale. comme mën nañu jàpp ne dina am ci tabaski bi. je ne saurais me permettre parce que nag. am naa mag bu baax de daa wax ne baax na sooy dig dara fekk nga denc ko sa walis wala nga def ko sa poos waaye loo dencul sa walis defoo ko sa poos soo ko digee sa morom xëy na bañoo ëllëg ci biir mu joxoñ la mais li ma la mën a wax ba wax rek mooy lii mooy que ne benn rappeler au Sénégalais rôlu état ci wàllu opération tabaski mooy lan état rôlam du jënd xar du jaay xar état rôlam moom mooy mettre en place un cadre faciliter les pour que nous menions à bien cette activité Ben, accompagner les éleveurs pour que nous produire beaucoup et de qualité sur le territoire national Là, on a beaucoup de programmes dont le PRONAM qui est en cours euh, au-delà de ça aussi accompagner les gens qui ont la vaccination pour surtout peste des petits ruminants parce que bokk na ci li nga xam ne day faagaagal jur gi lu bare bare loolu ay programme la c'est des programmes techniques du ministère de l'élevage mais au-delà de ça aussi pour opération tabaski en tant que damay faral di wax nit ñi yombal la ci état joué la ci moom moo ci rôlam mooy que ne ki ki nga xam ne tey day jëndi xar di jaayaat état ne ko ne ah soo demee jëndikat soo ñëwee ba ci frontière bi ñu ngi la waroon a taxé nangam taxe boobu dindi naa ko pour yow encourager la parfois suñu daa ñëw ñëw ba ci frontière bi wala ba ci yoon bi gendarmerie arrêté leen police arrêté leen wala douane arrêté leen mu nekkal leen lor yu bari état mu ne loolu aussi désormais ci période bii nii c'est interdit boo ko kenn def beneen bi aussi suñu ñëwee ba ci site yi nga xam ne foofu la ñuy jaayee xar yi ku la ne indi naa samay xar bi yoon waaye déwén duma ñëw parce que bi ma ñëwee aw ma sa ci site bi ndox aw ma fa courant gisuma aliment boo xam ne war naa caa mën a euh, jox sama jur sécurité bi di amul bandi yi jël nañ samay jur kon du ma ñëw loolu lépp nag euh, président de la République nee naa la mu signé lettre circulaire pour ne loolu nañ jëli matuwaay pour que loolu lépp tegandi su loolu tegandee nag yow en tant que éleveur wala yow en tant que opérateur économique yaay xool juge nga ne ah daaw demoon naa indi woon naa mille xar mille xar yi génn naa ci kon ren dinaa indi mille wala lu ko ëpp mais bu dee yow sa bopp juge woo ko ne activité bi amal na la solo wala activité amal na la benn rentabilité ak effort yu état mën di def mënu laa obligé yow nga am wala yow nga indi yenn looyi kon li ma bëgg wax nit ñi rek mooy que état. rôle ak mission moy képp ku bëgg jindi un million de tête tey ku ko bëgg jindi état yombal na la du la teg taxe yombal na la aussi so ñëwé fi nga fi ng koy wacc dina la ko garantir dina la gérer la sécurité mais aussi dina la accompagner ci ci fann yépp Le des nak état du imposer aussi né la da ngay jaay prix sangam wala da ngay wañi prix sàngam loolu euh, li ñu naan la loi du marché mo koy définir offre fu mu bëree rek moy ñi ñi ñi jaay fu mu ëppee jënd rek c'est tout à fait normal prix day wàcc waaye jënd su ëppee ñi jaay c'est une évidence aussi prix day kon dama bëgg ne nit su nga soy wax ak ce euh, askan nga bañ leena duggal ci euh, faux espoir bañ leena wax lo xamné leen di wax juste pour les plaire mais dans la réalité c'est pas ce qu'il y en beaucoup de li ñu jàngal mais beaucoup également li ñu auprès du président de la république Moi, que connais. dans la vie il faut avoir un discours réaliste et franc et nous, ngi de notre mieux mais li ma mëgg wax daal ba wax mooy lépp loo ne ñun war nañ pour que tabaski bi am ay xar bu mu doy on le fera inshallah taala ko élevage tamit xel dem ci ranch bu doli alors tay euh, ban politique ci wàllum yeesalum euh, élevage la travail yu ranch de doli par rapport ak euh, ranch dolly déjà dañuy sant Yalla bu baax euh, aussi euh, le président de la république comme euh, ni faral di waxee olof yi faral di naan lu uude bi wax ci béy bu man aussi peut-être lu le président de la république dina parce que partisan là c'est vrai je le suis et je l'assume mais lima amal solo amal solo par rapport au ranch de Dolly moi investissement yi nga xamné président def nako ko en un laps de temps mur de clôture buy tolok 120 km kilomètres mën naa nga dugg fii ci réew mi ci Afrique yépp néew na koy fekk wala sax est-ce que c'est la question que je me pose benen bi euh, forage yi nga xamné def nako ko amul fudul foofu au-delà de ça aussi euh, amna na ren gi au moment où je vous parle am un programme de promotion des cultures fourragères au niveau des ranch parce que nak gëm nañ ne ranch bi liko yëkëti won se lenn comme ni nit ñi di période de soudure période de soudure suñu amul fuñu dem zone de refuge dina pour que ñom ñom ñu mën président def ci pour accompagner tous les éleveurs du Sénégal à fait, j'insiste sur tous les éleveurs du Sénégal c'est pour que nous ñi le ranch de Doli d'où le ranch du département de Linger, d'où le ranch de la commune de Kiel ou de Gassan, d'où le ranch de la localité mais c'est le ranch de tous les éleveurs sénégalais période bi su presque nous fa la ñu màmb jëm ñëpp et loolu aussi dañuy rafetlu par rapport surtout aux investissements et maintenant pour surtout moderniser aussi valoriser li nous avons tester les cultures fourragères organiser aussi les acteurs autour de ces cultures fourragères parce que nous avons bëgg ne ngi déjà nga à petit pas tester ko mu de l'intérêt qui qui peut te permettre de promouvoir pour nous. et nous année prévoir un luy 30 hectares de cultures fourragères et nous vu ce que ça va donner pour voir dans les années à venir aussi qu'est-ce qu'il faudrait concrètement faire et accompagner. Euh, tay lan mooy sa yéene sa vision ci département bi nga xamante mom moom nga jiite muy élevage. sama yene ci département bi nga xamné Yalla yàlla mom nek moom nekk fi tey euh, yéene bu rëy la Bok na ci atteindre objectif bi nga xamné ne réew mi yëpp soxla na autosuffisance en lait et produits laitiers Tay tay tey mën luy tolok 580 euh, millions de litres de lait et produits laitiers nous consommons au Sénégal au moment où nous avons une production de 240-260. donc presque 40 de notre production rek en couverture normale donc beaucoup na ci programme bi satisfaire vraiment les besoins sénégalais en matière de production laitière nak euh, c'est tout à fait normal il faut am fou warna jaar wax naa ko ci li principal mon moi alimentation le alimentation fourrage de donc la promotion des cultures fourragères demeure un point essentiel ci suñu programme mais au-delà de l'alimentation l'organisation des éleveurs parce que quels que soient les efforts ya éleveurs ne état def na ko éleveurs ñi nga suñu amul ben organisation dina métti organisation yi fi nekk déjà damay rafetlu sen liguey parce que ñom ñoo impulser développement du secteur ba mu toll fi maintenant nak organisation bo gis amna na li ñu naan des impairs des biais lool au fur et à mesure dañ koy euh, revoir euh, xoolaat bi nga xamné joxé na résultat yu baax nous capitaliser les acquis bi nga amna ay ñu donc organiser les éleveurs à la base mais aussi les orienter dans l'entrepreneuriat parce que nous kenn que ne xamna euh de nature euh, ñu amuñu esprit entrepreneuriat euh, euh, gérer exploitation d'une certaine façon avec une certaine rigueur économique Nous nekkuñ ci kon dañu bëgg la nouvelle génération ñi nga ay acteurs lañ ci nous ñu encourager leen motiver leen par rapport à l'eau. L'eau, c'est le volet euh, laitier euh, Benenbi bi euh, c'est par rapport à la filière bétail viande su ma bétail viande c'est ci gën a affaire xar yi affaire nag yi mais point bi nga xam ne dañ ci bëgg appesantiru mooy affaire xar parce que nous, euh, euh, chaque année 800 000 têtes de moutons suñu consommées en une journée Ce qui est calculé calculer plus de 50 milliards ou 60 milliards en une journée loolu nag baax la manne financière naka la fi desindi nak lenn kessé la moy production locale bi ñu mën ko booster et par rapport à ça amna programme yu bari yu fu euh, tel que Pronam mais aussi amna euh, surtout échange yi nga xamné ne ñoo ko def ak les maires du Sénégal mais parallèlement à ça on veut mettre en place ce qu'on appelle de véritable fermier. ñoo xamné ne ni euh, ku leen gis wala ku leen dégg xam ne lii c'est une véritable entreprise d'élevage et incha allahu taala ci loolu la ñu jëm moom la ñu ñaan yàlla sama joɓen ka a jarama allah jarama a jarama ba bami weltima yo allah yoɓ teddugal peut être si vous le permettez avant même euh, may lancer message en polar euh, me lancer un message à l'endroit de la, de la jeunesse sénégalaise euh, xamal euh, leen que ne damay wax la jeunesse lànk sachez qu'il y a des opportunités intéressantes au Sénégal pour que kenn ku ne mën cee génne boppam bu ñu qui réunit, il faudrait impérativement ma bureau ma salaire pour mon fonctionner Je invité pour que nous un esprit esprit orienté à l'entrepreneuriat parce que je préfère être un créateur un fournisseur d'emploi que vraiment may recevoir et c'est possible instrument Yangifi, il y a aussi au passage je le rappelle euh, la dotation de plus de 3 milliards pour le président def dugal ko ci fonds d'appui à la stabilisation Fond boobu dara yekuti woko lu accompagner kep da nga ci secteur élevage l'année dernière en 2018 amuñu won sax un financement de 100 millions ci au moment où je vous parle mën plus de 1 milliard 5 financé nan ko pour opération tabaski pour yenen Activité. donc j'invite encore une fois de plus la jeunesse sénégalaise à se battre derrière le président de la république pour l'émergence du pays parce que nous sommes suñu la sommes kenn double nationalité wala trois nationalités ñun su su parce la nationalité sénégalaise malheureusement le politicien particulièrement le politicien sénégalais de bari ñoo il y a une différence notoire kon baax nañu commencer changer les paradigmes mais aussi ñu am orientation boo xam orientation bu objective la mu am euh, ay bëgg-bëgg loo xam ne ci askan bi la jëm mu bañ a rek sama bëgg-bëggu bopp parce que nag euh, gis ngeen ñu bari ñuy def li gars wax di sànni xeer la plupart du temps c'est des intérêts personnels qui sont menacés mooy tax yenn levée yi di am mais nag qui se le pour dire euh, noppi am na solo su ko laajee waaye am na fooy toll da ngay sës rek réew mi du ñu nangu kenn kenn ak koo di doon yàq ko parce que nag c'est notre pays et nous avons le droit franchement de défendre ça et quoi que ça puisse nous coûter et incha allahu taala lépp lu ñu mën dinañ ko def pour défendre ko mais surtout dans l'élégance et le respect mutuel Merci beaucoup. Voilà donc des mots révélateurs, des mots galvanisants qui mettent un terme à ce présent grand format je rappelle que nous recevions Samba Ndiobenka, qui est le ministre de l'élevage, dénk élevage bi kon rendez-vous prochainement ci un numéro grand format avec un invité toujours ci Dakar Actu monsieur le ministre kon ci pulaar rek ak à l'endroit de nos parents halplar. merci beaucoup euh, Aladji Samba mi de yettuma mi de jaarnuma y yetti également leydi sénégal fof et heyni heen président de la république son excellence et le gouvernement muɗum fof Et miɗo welto non hande e o do ñalawma parce que ñalawma nganndanɗa mbo taki okki amen occasion Halde nafoore nde nganndanɗa président de la république wadi rondini e gaynak ko idi ko e nafoore hee fof gooto fof no anndi ɗiɗo dumunaaji ñabbu mus yani e o hee tolno to 3 milliards weeɗi e éleveur uji ɗi yo cot naftoro e nous aussi ine ko ɗum subvention 100%. Et nous e également ƴetti ko trois milliards goɗɗo waɗi e fonds stab woni fonds d'appui à la stabilisation pour wallude julaaɓe ɓe mbaawa calis, kaalis ɓe mbaawa de kaake walla ɓe mbaɗa Ambouche Bovin, ko waawi wonde heen kala mi layaani non. ko investissement mo nganndanɗaa o no waɗi e ranche de dolli par ce que gooto fof no anndi ranti dolli wonndo ko lagde ugaare o welaa fof taƴa ɗo welaa fof rewa arii noon waɗi hannde fa woni damal gootal ko tolnoto teemedere e noogas kilométre fof mbaɗa ɗum haa wona damal gootal e afrique mi fonndu ko sénégal tan woodi mi layaani noon ndiyam ɗam ɗam mbaɗa ɗam to mi layaani goɗɗum goɗɗum e goɗɗum ko wonaa ko ɗum aussi ni minene koye amen miɗen mbaɗi prévoir hikka wadde toon ko wiyetee ko 30 hectares hectare uji capanɗi tati culture fouragére huɗa ko gandanɗa koko nafowo aynaɓe e jangge e jaam e tagi komin poti 30 e hectare min mbawa fin min mbaɗa ko ɓuri ɗum par ce que noon saɗa fuɗɗo hunde ne moƴƴi natta hen ƴeewa ko werrata so weeri ko moƴƴi jangga e jaam mbawa yajjinde hedditto ko noon mbaɗat mi lancé un appel e aynaɓe fof miɗoɓe nodda pour faati koye opération tabaski o gooto heen fof ko waawi yo ko waawa yo wat pour leydi ndi heewa baali par ce que noon ko ñalaande nde nganndanɗaa ko ñalaande wonde nafoore e e diine meeɗen ko wonde nafoore e ngalu meeɗen kono ko wonde nafoore aussi sur le plan social ɗum taki noon miɗen noddu gooto fof ene waawiɗo ene ɗumini ko heddittoo ko kantinirani yooɓe nganndu uh, neɗɗo so weeɗiima ɓottaari weenma hirande so digiima kaccitaari jaɓɗum président de la république noon kala ko nganndanɗaa wiyina ɗumen homo hen eto baawi muɗum kedditto noon ko ko ko neɗɗo neɗɗo ala saga ma won ko muti ma won ko mankira wadde toroɗen allah allah yettine fof on jarama je vous remercie samba dioben ka ah, jarama allah jarama bandiraɓe sénégal on jarama merci beaucoup